أعوذ بالله بسم الله وصلى وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه وخديمه وأمته dafa am bataaxel bu sëriñ tuuba jëmale woon ci mboolem taalibe yi bataaxel ba nag nii la tëddee إنه مني إلى جميع المريدين والمريدات سلام طيب يعصم الجميع من المريدين والمريدات ويدخل الجميع في السلامة والعافية في الدنيا والآخرة بجاه رسول الله صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم وبارك أما بعد فإني أمرت كل من تعلق بي لوجه الله تعالى الكريم بتعلم العقائد والتوحيد وأحكام الطهارة والصلاة والصيام وغيرها من كل ما يجد على كل مكلف وإني تكفلت لكم ولكن bi tawaalifa yakunu fiha jamihu dhalik li wajhillahi taala alkarim aleykum wa rahmatullahi taala mu ne lii daa bàyyi ko ci man ma jëmale ko ci mboolem murit yu góor yi ak yu jigéen yi dama leen di njëkk a nuyu nuyu bu teey bo xamne da len di musal ñom ñëpp ci ku fetterlu ku lànka top ku bëgg dox seen digënté lu baax la len yalla bëggal ni boo xam xamne it da len di duggal ñom ñëpp ci mucc ak jamm ñu sax ci mucc ak jamm faaw ci aduna ak ci alakhirah ci ki nga xam ne moom laay liggéeyal sallallahu alayhi wa alihi wa gannaaw nuyoo bi képp ku aju ci man nga xam ne digal naa ko mu jàng ba xam lépp lu mu kàllaf war a xam ci mbirum diineem te nag maa leen warlul taalifal leen téere ya nga xam ne te ngeen koy jànge ba du ngeen ko jëggaani feneen yàlla rekk a tax nag ma warlul leen ko ràññeel na ci waxin wi ne góor ñeeg jigéen ñi ñépp la maasale ci ndigal li ndax dane ila jamiil muridin wal muridaat ca itam mu ne lakum wala kunna li taalibe bi war a jiital mooy fexe ba xam gëm ci lislaam nu mu demee ndegamit julli juróom bés bu ne mu ñëw juróomi yoon war naa xam laab gaag lépp la koy tax a baax ak jëmmi julli ga ci boppam te li ko yàlla dénk it am lum ko ca aaye am lu ko ca sant mu daldi xamé lumudon loola lu mu doon ndax man ca taxaw lepp lu mu yëngutu itam ci mbirum adunaam di ci wut wërsëg mu xam la ci aay ak la ci aayut ndax man ca awé ci aw yoon baña jadd ndax lu lew addis ba neena la talabul halali jihaad Kuisa sàkku wërsëgit ca nañ ko santaane bañ a jàdd yoon wa yaa ngi ci jihaad tiyaabay jihaad nga cay amee man talaba rizqa ala ma yusannu fa huwa fi jihad, bu tali bi xësee xàmmee yii nag la ca des mooy mu farlu ci balaa song menn mbir ci mbirum diineem mbaa mbirum addunaam xam ko bu ko xamut laaj ko ku xam te maandu lu ko ci wax mu jàpp ca loola ndegam nag gëm mooy jiitu leneen door caa topp te gëm ci lislaam amul jàppandi lool ndax juróom benn rek boo leen xasee gëm écrés yëpp dugg nañu moo tax nu boole juróom benn yooyu ci kaset bii topp ni ko sëñ bi indee ci tasawudu sixaar bëgg koo xam ne jóg ne daay laaji saa mbirum diine da koy jaxe mu mën a déglu bu baax li ñu ci waxtaane te di ko jot li képp kum defe ne dana ko di yittewoo sëriñ bi ni muy jàngalee da caa jëwriñam joojee ndax muy ci téere yi niki tasawudu sixaar meeg tasawudu shubbaan ak dénkaane yim daan dénkaane ak tomb yim daan tomb yépp day def diine ñetti xaaj al iman al gëm te santaane yàlla ci kaw suuf lépp looy wax ak lépp looy jëf yàlla rekk tax te nga sàmm ca teggiin loolu nag boo delloo ci xadiisu xomara binil xattaab bu siiw boobee noona la jibril laaje yonent bi laaju ku bëgg keneen xam yonent bi tontooka noona omar dane dafa am benn bis mu toog fi yonante bi jenn jëmm ne jaseet joo xam ne daal yére yu weex tàll kawar gu rafet te ñul kukk amut luy nuru jeexitu ku bàyyi ko ci àll dara laalu ko ca mu ne it te kenn ci ñun xamu ko ne kon ab doxandeem la fa mu daldi sukk ci kanam yonante bi jël ay bëti susci sës ci bëti woomi yonante bi jël yaari tengam tek ci yaari luppam amé melaw donga bu bëgg ab sëriñam jangal ko mu dal laaj yonante bi ne ko waaw lan modi al islam yonante bi ne ko l'islam day moy nga yàlla rek kay buur te man Muhammad mii moo yónni muy benn ngay taxawal julli juróom muy ñaar ngay joxe asaka ndegam asaka war na la muy ñett ngay woor Ramadan saayoo ca àggee ci at mu ne aj màkka nag moo ci mujj soo ko mënee mu ne ko wax nga dëgg de Omar ne lu yéemu ci lim ko ne wax nga dëgg de ndax wax nga dëgg de jooju jubluwu ci gëm naa li nga wax da ko bëgg woon ne ko ni nga tontoo noonu la te bu doon toon noonu danaa xam ne du noonu jàll nag laaj ko ne ko waaw lan moo di al gëm ne ko gëm dey mooy gëm yàlla ci boppam gëm malaakaam yi gëm téeréem yi gëm yonanteem yi gëm bispenc gëm nag ab dogal xam ne dara tombiwut lu am rekk lu yàlla dogaloon la àgg ci sottal sottal ko mu neeti ko wax nga dëgg laaj ko nag luy al ihsaan ne ko al mooy ngay jaamu sa boroom te rafetal jaamu ga ba mel ne yaa ngi jàkkaarloog moom te it mu wóor la ni moom bu fekkee gisoo ko moom mi ngi lay gis laaj ba dafa jàll waaye la nu gën a yitteel rekk mooy fa addis ba ndax Omar dane dama tok dir bu yag yonent bi ne omar ndax xam nga ki doon laaj ku mu doon mu ne ko yàlla akub yonanteem ñoo ko xam mu ne ma jibri la dafa ñëw doon leen jàngal seen diine te awe ko ci laaj ma ma di ko tontu hadis boobu rawaahu muslim ni sëñ bi jàngalee diine da cee roy rek kii mu doon liggéeyal def ko ñetti xaaj al iman al islaam al ihsaan al ihsaan boobu ñu firee rafetal nag mooy dugal ak taalibe mooy dugal tasawuf ndax mooy jaam bi lépp lu muy wax ak lu muy jëf yàlla rekk tax te mu sàmm ca teggiin ndax yàlla boole ko ci ñamuy gërëm ak taamu wàllu gëm gi nga xamee nag moom lañ jagleel kaset bii sëñ bi koo tàmbalee ci waxanteeg gone yi nga xam ne ñoom la doon taalifal téere bii di tasawudu siraar ne leen bu ngeen bëggee xam lan moo di gëm ci lislaam xam leen ni gëm ci lislaam génnut juróom benn yi ndax leneen loo topp rek ci lu ñuy gëm mu del waat ci juróom benn yi muy gëm yàlla ci boppam ak malaakaam yi ak téere yi mu wàcce woon ci ay yonanteem ak yonante ya ak bispenc akub dogal sëñ bi nag njëkkee gëm yàlla ci boppam door a jàll ci la ca sës ni ñuy gëmee yàlla suñu borom moom ci gàttal mooy nga gëm ne yàlla am na te sàkkul boppam kenn sàkku ko te it melowoo na lépp lu di ak mat sori na itam lépp lu di ak matadi ni sëriñ bi waxee fii nag ni ñuy gëmee suñu borom te caa topp al imaam al ashari al ak ña ànd ak moom dañuy wax ne yàlla dafa am ñaar fukki melo yoo xam ne melo yi mat la mënu leen a ñàkk melowoo am ñaar fukki melo yoo xam ne ñoo safaanoo yooyu di ay matadi te jomb na ci moom am nag loo xam ne ci wàllu yàlla mën naa am mën naa ñàkk kenn du ko féetale ci ak mënta ñàkk kenn du ko féetale ci ak jomb ñaar fukki melo yi sax ci wàllu yàlla di melo yu mat ba ci jëkk mooy al wujoodu ak am ngay gëm ni yàlla lu am am la du rekk lu ñuy wax te amut ñaareel ba mooy nga gëm ne daliwul fenn ñettel moy nga gëm ne du yam fenn dem ba jeex ñu ne yàlla amatut ñeenteel mooy nga gëm ne moo sàkk lépp waaye nag amu ci dara lum ci nuroon teel yàlla sàkk lu ne waaye nag nuroowut ak dara ak mbindeef juróomeel mooy nga gëm ne yàlla kat dafa doylu ci boppam sëkk sëkk aajowut kenn mbaa lenn te moom nag lépp ko aajowoo kenn mënta dem wan ko gannaaw juróom benneel mooy nga gëm ne yàlla dafa wéet ci jëmm wéet ci melo wéet ci jëf wéet jëm mooy jëmmam ji moom rek moo ko am wéet ci melo mooy meloom yi moom rek moo ko melowoo wéet ci jëf nag mooy moom rek mooy jëf lu bokkut yàlla rek jëf yàlla ci gàttal juróom benni meloo ngoog muy al wujud al qidamu al baqaawu muxaalafatul xalq al qiyaamu bi nafs wala al ghina ak al waxdaaniyatu nga tek ci juróom yaar yo xamne faw mu soppiku yaari juróom ñaar bo boolee nak yaar juróom-ñaar yu fukk ak ñeent ak juróom-benn yi nga wax léegi mu daal doon ñaar fukk ba jëkk juróom-ñaar yi mooy nga gëm ne yàlla amee na kàttan goo xam ne dara lëttaliwut lépp la mën muy benn ñaareel ba yàlla ci coobaram dong lay jëfe dara du ko rëcc am ba kenn forcé ko ci dara coobareem rek lu am ci la amee ñetteel bi mooy nga gëm ni yàlla xam na lépp amul lu mu umpale te lu ne na mu doone la ko xamee ñeenteel alxayaatu dund nga gëm ne yàlla amee na dund goo xam ne moo yàlla ca moom te deedu ca topp mukk gannaaw yent yi nga teg ca ne yàlla amee na dégg ba yàlla ca moom ak gis ba ca moom ak wax nga yell ca moom juróom yaar yi mu tudd al qudratu al iraadatu al ilmu al xayaatu al samu al basaru al kalaamu day nag melo yoo xam ne jëmm mu nekk faaw nga ne doon na loola kàttan gi nga wax kum nekk ci moom nga ne moom day qaadirun aji àttan la maanaam jëmm ju am kàttan la iraadatun coobare muy nammeel kum nekk ci moom faaw nga ne muriidun la aji am coobare la xilmun xam-xam kum nekk ci moom faaw nga ne xaalimun aji xam la xayaatun dund ku ko amee nga ne xayyun aji dund la samhun dégg ku ko amee nga ne samihun aji dégg la basar gis ku ko amee nga ne basirun aji gis la kalaam wax ku ko amee ñu ne mutakallimun aji wax la kon juróom yaar yi nga al qadiru al muridu al alimu al hayu al samihu al basiru al mutakallim seeni safaan nag di ay matadi ñooy jomb ci yàlla ba ci jëkk mooy ñàkk maanaam bañ am yàlla di loo xam ne dañ koy wax rek waaye ci dëgg-dëgg amut loolu jomb na ba ca topp fenn da nga fenn ñettel ba dem ba jeex da nga won yalla du jeex mukk ñeenteel ba da nga ne woon yàlla moo sàkk lépp waaye ci ak len dara kon nak yalla yamon tek dara ci lim jom na ci mom juromel da nga ne yalla da doylu ci bofum sekk kon yalla yàlla jëm ci kenn ba len jom na ci mom juromel moy wéet ka nga waxoon ci jëmm ja ak melowaak jëf ja boo ko dindee teg fee ne yàlla du kenn mel du kenn ci jëmm mbaa jëf mbaa melo loolu jomb na ci yàlla juróom benn yi moo tudd alxadamu alxuduusu alfanaau al tamaasulu al iftiqaar al taxaddudu juróom yaar ya ci sës te di soppi ko wat yaar juróom ñaar yuf ko ñent moy nga ne lot ci dara jom na ci yalla muy ben yalla di forcé ko ba mu def ba dara rëcc ko rek am muy ñàkk coobare jom na ci mom muy ñaar dara jomb na ci mom muy ñett b jomb na ci mom muy ñent ñak degg muy tëx jomb na ci mom ñak gis muy ngumba ñak wax muy lu juroom yaar yi bu ci nekk nag ku ko melo woon dang ko ko wooyee lott gi nga wax ak tëlikum nekk ci moom muy alxajisu faaw nga ne moom day xaajisun aji lottu la alkaraahatu bi ñuy wax sib te jublu ci lu neexul yàlla am ci force du ci coobareem alkaraahatu kum nekk ci moom ñu wooye ko kaarihun aljahalu réer ñàkk xam kum nekk ci moom ñu wooye ko jaahilun almawtu dee ku muy dal ñu wooye ko mayit tëx gu nekk ci moom ñu wooye ko asàmm alxama gumba ku dal ñu wooye ko ama albëkka mu luw ko al kon ci làmmiñu arab mën nga ne alxajru alkarahatu aljahlu almawtu alsamamu alxama albakam muy melo ya la nga xam ne nag ku melowoo yi faaw nga wooye ko ko boo ko bëggee tudd nga ne alxaajisu alkaarihu aljaahilu almayitu al asamm al li nga xam ne nag ci wàllu yàlla mën naa am mën naa ñàkk mooy lépp loo xam ne rek lu mën a am la nekkul lu jomb nga ne moom day dañ koy bàyyi ci coobare yàlla rek duñu wax ne yàlla def nangam da koo war sañu koo bañ duñu wax ne itam nangam de yàlla sañu ko dañu wax rekk lu ko soob def lu ko soobut bàyyi te bañ a waral ci moom dara bañ na itam nangam sañu ko niki waral gi waral ñu gëm ko te di ko topp ak araamal gim araamal weddi ko mooy ko lépp rek coobareem la duñu wax ne gannaaw bam waralee gëm ak topp kon kat bu wéyee gëm ak topp dalaa war a yóbbu ca këru teraanga ga mbaa gannaaw bam araamalee weddeeg mooy yóbbu ga muy yóbbu ñay weddee kay mooy ca safaan ba it warugar la suñu ko bañ déedéet dañu wax ne lépp rek coobareem la moo moom lépp lu ko soob def lu ko soobut bàyyi ci coobareem nag la dogale ne ña gëm tey topp ñoom laa yóbbu ca kërub teraanga ga ñay weddee kay mooy ma yóbbu leen ca safaan ba waaye taxul nag dara war ko ca kon ci gàttal lépp loo xam ne jombut lu mën a am la dañ koy bàyyi ci coobare yàlla su ko soobee mu amal su ko soobut mu bàyyi bañ koo amal mu teg ci ni ñuy gëmee malaaka yi mu ne malaaka yi moom da ngay gëm ne ay jaam lañ yoo xam ne yàlla leen sàkk te sàkki leen ci leer ñi gaayu tedd yoo xam ne topp rek lañu man mënuñoo moy li nga xamee ne moom ngay noyee te doo ko yëg doo ci am benn coono bu la dara dalut malaaka mu ne jaamu ko ko yàlla sant noonu la ko jàppandee mënu ko bàyyi malaaka nag du lekk du naan moo taxit du dem wanak ba tey malaaka amul góor ak jigéen njëkk nag lislaam di leeral ni ñuy gëme malaaka yi am na ñu daa jaamu malaaka yi am na ñu daa wax naa malaaka yi dañ di ay doom yu jigéen yàlla waaye lislaam nag daal di leeral dañu leen di gëme wane ne ñoom ay jaam yu tedd lañ yoo xam ne daal fuñ tollu ñu ngay sax ci sàbbaal yàlla ak màggal ko duñu lek duñu naan man nga daal sabbal yalla ak magal ko rek moy seen lek moy seen naan mu teg ca ni ñuy gëmee téré yi bayiko ci asaman duñu nee yi bayiko ci asaman moy rek yalla bu dee yoni ak yonante day yabal jibril musa yonenté bobé lam bëgg mu dem ba ñu bind ko ci ay kayit mbaa ci alluwa di ko jàng muy ay téere yu ne léng téere bi ñuy wax at tawraatu muy téere bi yàlla Muusa moom dañ ko defoon ci ay alluwa jot li ko Muusa kon gëm téere yi mooy nga gëm ne yàlla ci boppam moo am ñu ko soob ci doomi aadama yi mu xamal leen lu mu ñu jot ko nga gëm ne nag loolee kon ci yàlla la bawoo ñoom ay ndaw lañu dañoo jottali rek nga gëm ndaw yi daañ ko wax ci kanam gëm li ñu andi ñoom mu ne nag li mu mbooleem téere yàlla masa wàcce téeméer laak ñeent aadam alayhi salaam yàlla wàcce woon ci moom fukki téere doom ji tudd siisa yàlla wàcc woon ci moom juróom fukki téere mu juróom benn fukk idris yàlla wàcc woon ci moom fanweer sunu maam ibrahim fukki téere mu daal téeméer ñeent yi nag moom tegu ca téeméer ba seeni tur nekk nii mooy at tawraatu bi yàlla wàcce woon ci muusa al injiilu bi yàlla wàcce woon ci isa alzabooru bi yàlla wàcce woon ci yàlla wàcce woon ci muhammad sallallahu alayhi téeméeri téere ya du aajowoo ngay jéema dañ kumpa ci nu tuddoon mbaa waaye ñeenti téere yi moom muy at tawraatu al injiilu al zabooru al furqaan wala nga ne al quraan moom day war nga ràññee seeni tur gëm ne ay téere lañu yàlla wàcce woon ci ñeenti yonante yii mboolem téere yooyu nag mennum alquran rek la ci yàlla warlu woon ne maa koy wattu ba kenn du ko soppi ci dara kenn du ci mën a yokk kenn du ci mën a wàññi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la xaafizuun ndax ci coobareem dafa def alquran muy téere mboolem doomi aadama ci kaw suuf li dale fi Muhammad feeñe booba addunay tukki kon nag war na koo sàmm ba dara du ko soppi mu jàll teg ca ni ñuy gëmee yonante yi mu ne yonante yi ñoom dangay ngay gëm ne ay mbindeef la di ay doomi aadama yu yàlla wóolu tànn leen yebal leen ci mbindeef yi nga jàpp ne it képp ku yàlla yónni am na yetti melo yoo xam ne du mën a ñàkk ca moom am yetti melo yoo xam du ko jege du ko laal am loo xam ne nag mën na am ci moom mën naa ñàkk ci moom yetti melo yi mënta ñàkk ci ku yàlla yónni mooy dëggal dëgg rek lay wax ñaareel ba mooy sàmmonteeg wóolu yu ko yàlla wóolu ba du mooy yàlla ci def lu yàlla araamal mbaa yàlla sib ñetteel ba mooy jotli li ko yàlla jottali loo bañ caa yokk dara bañ caa wàññi dara yetti melo jomb ci ku yàlla yónni nag mooy safaanu yooyu wax lu amut muy benn ak wor yàlla ba defuk mooy moo xam lu araam la mbaa lu ñu sib la ak ñàkk jottali dara ca la leen yàlla jottali loo la nga xamee ne nag mën naa am ci ku yàlla yónni mën na caa ñàkk mooy lépp loo gis rekk muy dal nit yi kese yi ñu dul ay yonante ni ki xiif mbaa mar mbaa sonn mbaa noppalu rawante na yi nga xam ne dañ koy jëflante ci kaw suuf ni ki jaay ak jënd ak takk soxna rawante na itam xeeti yi ci àdduna yi yooyu yëpp moom jàppal ne ni mu dale nit yi kese yi mën na naa dale ku yàlla yónni bu dee sax xeeti tiis yeeg métit yi moom ku gën baax ci mbindeef yi moo ci ëpple te ñoom yonente yi ñoo gën a baax ñëpp moo tax ñooy ëpple ay nattoo ki tiis ci àdduna bu dee wàllu jëfalante ci kaw suuf ni ki jaayanteeg takk soxnaak mbolim yi nga xamé ni rek daañu ko aajo ci kaw suuf def gañ koy def day yok seeni tuyaaba ndax nañ koy defé ci la xamé yoon wa roy leen ci te yonante bu né nga gindi awal leen ci yoon sa daraja ak say tuyaaba nona lay tollu bu ñu né nak ku yàlla yónni day wacc ba tollok nit yi kese yi di def lañu def di daj lañu daj ba nit ñi man ko roy xamni mom mi ndaw lu ñu ñu war ko roy am kat lo xamni ya yalla du leen ko tek mukk mukk moy luy tax ñu daw leen yalla man leen tek tawat ak lu metti metti waye nak luy tax ñu daw leen niki ngana bi tawat ji walé ba luy wañ ja niki yoom loolu moom yàlla du leen ko teg mukk mukk ku yàlla yónni ku ne nag dana am kiimtaan gum la jox ba tax nit ñi gëm la xam ne yow mi yàlla la yónni te kiimtaan googee mooy wecci suñu borom ne woon kooku sama ndawa lu wax maa wax lu mu jëflu maa ko jëflu wax kay woote ne yàlla wax kay woote ne yàlla wax kay woote ne yàlla wax kay woote ne yàlla